TDKC 313 Touba Daaru Koso communication di kër gi teewoo lépp lu jëm ci wàllu téléphone portable ak i accessoire am wala mbirum électroménager moo leen di gunge fii ci académie Minane ci màggalu Touba atum 2019 di ñaanal Serigne Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te ànd euh, kon mbokk mi nekk ak ñun nii mooy Cheikh Mouhamad Ajaan Eh, di shérif di xafidu Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam taxawal académie islamique fi Turquia di borom xam-xam bu mag di ko bëri lu muy def ay conférence partout dans le monde en Afrique en Europe en Amérique eh, moo ñëwoon fii ci magal gi ren ñu ko fas ko jox micro mu wax sentiment yi mu am bi mu ñëwee ci dëkk bi ak nu mu gisee ndaje bi ak nu mu gisee xew-xew bi ak nu mu gisee dëkk bi idan fa dee def Cheikh Muxtaram هذه هذا تلفزيون yurahibuna bikum fii Touba wa yastahsinuna hadi alkalima alqayima allati alqatumuha wa yafrahuna bi wujudikum wa wujudi zumala lakum min muxtalifi duwal alam fa marhaban wa ahlan wa sahlan bikum fa hum yatlubuna minkum uh, intibaatukum wa masairakum fi musarakatikum fi hada alliqa alislami alsanawi suufi wa huwa màggal Touba fatafaddal uh, mashkur insha allah bismillahi wasalaatu wasalaamu ala sayidi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah تحياتي وشكري وامتناني لمولانا فضيلة الخليفة العام للطريقة المريدية سيدي وسندي محمد المنتقى حفظكم الله ورعاكم وسدد للخير خطاكم كما أشكر كل العاملين على خدمة هذا الكرنفال الكبير هذا الذي أسميته حج المحبة فقد اجتمعت هذه الجموع المليونية على حب خديم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وإني أرى هذه الجموع تتوافد شيئا فشيء ليشهدوا منافع لهم والله إن الإخوة كلهم في سرور وحبور وأظن ظنا قطعيا أن طوبى ستكون قبلة الأرض علما وتصوفا وتزكية كما ورد اسم بغداد والكوفة والبصرة في كتب السير والتاريخ وأتمنى لكم كل الموفقية والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد أجانينا من أمك لول ci teew gim teew fii ci Touba mi ngi sant yàlla mi ko boole ci ndaje mi nga xam ne moom nee na mu euh, su ko doon tuddee da koy tuddee carnaval boo xam ne carnaval millionnaire la maanaam euh, ndajem doomu aadama yoo xam ay million doomu aadama fi daje. waaye nee na ndaje bi ñu fi daje yëpp nag lépp nag ci sunna Seydina Muhammad rek la ñuy dundal akuk mbokkoo akuk saxal ak jàmm ci àddina bi nee na mi ngi ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla sàmm ko taxaw ko nee na kaddu yi mu yi mi ngi ko yëkkati mboole seen gani étranger yi nga xam ne ñëw nañ ci invitation Cheikh Mouhamadul Mountakha nee na ñoom ñëpp bi ñëwee ci dëkk ñu ngi yëg ak mbégte di yëg ak kontante di yëg ak ubbiku di yëg ak yaatal goo xam ne yaatal nañu ko bi nee na dafa mel ni dañoo ñëw rek génn seen kër dugaat seen kër nee na mi bég na lool xolam sedd na Euh, li fi xew lépp xam na ne lépp yàlla kese la te yàlla na yàlla ko def lépp muy jàmm sotti ko ci àdduna bi incha allahu taala wa min hada almakan altahir ansaxu wa uusi jamic ahlana fi senegal alwuquuf bijanib mawlana alxalifa wa an laa yabxalu maadiyan wa macnawiyan ruuxiyan wa qalbiyan lidacmi xarakati alcheikh alcilmiya alruuxiya فهي حركة تجديدية في القارة السمراء وما أراه إلا مجددا قد أرسله الله لكم فاغتنموا هذه الفرصة nee na mi ngi ñaan waa Sénégal yëpp góor ak jigéen taalibe murit ak ku dul taalibe murit nañ gunge Sëriñ Muntaxa Mbàkke ci bërëbu xam-xam bi muy bëgg a taxawal nee na ku am alal def ci ku am sam ñaq def ci ku am sa kattan def ci ndax nee na moom wóor na woon Sëriñ Muntaxa dafa ñëw ngir yeesal sunu Seydina Muhammad dafa ñëw ngir yeesal bëgg-bëggu Sëriñ Tuubaa waaye jaare ko ci xam-xam ndax nee na bu nit ñi xamee rek defaru te wóor na ko ni sëñ bi loolu dong la ci jublu mooy defar doomu aadama yi defar diine ji defar askan wi defar réew mi kon mi ngi ñaan Sénégal gépp góor jigéen mag ndaw euh, taalibe murit ak ku dul taalibe murit lu waay am na nga ko gunge Cheikh Mouhamadul Mountakha ci sa kàttan wala sa xam-xam wala sa xarañ ndax lépp day doon njëriñu Sénégal doon njëriñu askan wi incha allahu taala shukran jazilan TDKC 313 Touba Daaru Koso communication mooy kër gi faj seen jaaxle ci lépp lu jëm ci wàllu téléphone portable waaye lépp lu jëm ci wàllu matériel électroménager waaw Touba Daaru su communication nekkee fii ci rue Escarpette angle Rafanel gérant bi di Serigne Abdoulaye Ndiaye ànd ak Serigne Moustapha Fall ak Cheikhouna Khouma bu ngeen déggee ñu naan spécialiste ci wàllu écran fii la fekk baax rawatina nag bépp pièce bu ngeen bëgg a changer yéen réparateur portable yi wala jumtuwaay yi ngeen di liggéey ñoo ci mën keneen ku dul ñoom kër gi spécialiste lañ ci lépp lu jëm ci wàllu écran mën ngeen a jokkoo ci numéro yi ngeen di gis suñu ñaareelu place mi ngi nekkee fii ci dakaar salle de vente rue Moussa Diop angle Escarpette waaw lu jëm ci wàllu accessoire portable wala électroménager bàyyiwuñu dara moo xamuy muy écouteur chargeur wala lépp lu soxal portable wala électroménager moo xamuy muy télévision haut-parleur MP3 dernière génération iPod Boltuf waaw jokkoo leen ak geran bi di am yu xuma ak Serigne Khadim xuma wala ba tey ngeen ñëw fii ci suñu ñetteelu place bi nekk ci Petersen avenue Sénégal moom itam lépp lu soxal wàllu portable ak i accessoire am wala électroménager mën ngeen ko fay fekk xool leen yi bagage yu taaru da ngay xool ba fa sa bët yam gérant bii di Khadim Ndiaye ak bàcci xuma mën ngeen jokkoo ci numéro yi ngeen di gis TDKC 313 ñooy ñaanal Serigne Mountakha Mbacké xalifa général kulu murid mu yàgg fi lool te ànd ak wér màggal gi mooy sunu ndam jërëjëfe màggal gi